Oye. sañal sa doom mu ne doom mu ne gëm xale mu min la ne ko xale yaral yàqal ba noo ko ma jàngal ci digi digi daam dara du ko tee moo min

tey nag euh, sama wax dama koy njëkkee ci kenn koo xam ni dafa nekkoon HLM am lu mu fi représenté nekk sun imam ratib nekk sun papa nekk sun xarit muy imam Mouhamadou Lamine Sarr tey mënuma wax te njëkkuma jël sama jaal di ko teg ci loxo waa commune HLM yëpp ak njabootam di ko jaale jërëjëf euh, Kande di leen wax ñun lu ñu leen di wax rek ñun lépp loo xam ne dañ ko am suñ ko indee HLM dañ ciy fier ndax amuñu lu dul HLM moo tax tey événement yu mel nii dañuy préféré di échanger teg ñoom su dee ci korité su dee ci tabaski parce que population HLM rek la ñu am tey loolu moo tax tey ñu def lii ci tamxarit bi jël ay nag dugal ko ci commune bi jël ay nag indi ko ci foo xam ne moom la ñu dëkk pour ñu xool tey askan bi ku nekk loo ci mën a am tey nga jël ko ci tey loolu moo ñu inspiré ci lii ñu def ko. waaw loolu man duma ci wax. tey ku mel ni euh, suñu porte parole Birame Ndiaye Rose mën na ci wax parce que am na fenn foo xam ne ñu ngi fa ànd ay zone yoo xam ne moom mooy wàcce nag bi parce que nit ki mënoo def dara ba pare taxaw daan man maa def li saabu du fóot boppam tey nag nag yi bëri na te ñi ngi ñaan yàlla yàlla di ñu ko mën loo ñu koy def chaque année di ko defal waa commune HLM ndax ñun HLM rek la ñu am HLM rek la ñu bëgg mais tam suñ ko mënee tey di ko def dafa am tam ñenn ñoo xam ne ñoom ñoo ñu ci jàppale ñu ànd ci ak ñoom muy waa mouvement sa dëgg-dëgg ñu ànd si ak kenn koo xam ne moom mooy sun parrain muy honorable député Farba Ngom nga xam ne jàpp na ci bu baax a baax a baax bu ñu commencé ba tey mouvement bi moom lañ ci àndal te moom tam mu am kenn koo xam ne mooy kilifaam bëtam lay xoolee. tankam lay doxé noppam lay déggee muy son excellence le président Macky Sall. xalaatuñu lolu tay wa mouvement bi sax suñu doon ñàkk ñom jaral na leen ñu ñàkk commune HLM am tay commune bi lañ koy jox te commune bi tam amna ay quartier yo xam tam dañ ko fay duggal ño xam tay sen loxo jotul sen ginnaw te bëgg nañ tam tay fête bi ñom ñëpp ñu gis ci sen bop fu ci melni ay montagne dinañ xol tam luñ fa mëna duggal ba paré tam di leen wax président Macky Sall tay def na loo lu reuy une première fois dans l'histoire Juma yu nekk HLM yep. ku ci nekk yónnee na la nag boo xam ne mi ngi aw ci honorable député Farba nga aw si sama loxo. politique Kande mën na am divergence mën na am ñëpp mënuñu bokk jëmandoo fenna mais ma dellu ci ginnaaw tuuti rek tey Ousmane Tanor Dieng yàlla na yàlla yokk leeram bu mu génnee àdduna. ku ci mel ni ñoom Idrissa Seck dañu taxaw seedeel ko ne tey homme d'état mi ngi nii koo xam ne yóbbaale na secret d'état yu bëri te mësu ko génne te tam ñu xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. lu maam Abdou Aziz si doon wax rek yal na yàlla tàbbe xol yi ba ñun ñëpp ñu nekk benn ba tey opposition ak pouvoir ñoom ñëpp ñu nekkaat benn pour intérêt Sénégal. waaw euh, asalaamaaleykum man la biram Ndiaye Rose di porte parole lu mouvement Sa Dëgg Dëgg ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye bi mu débuté ba toll fii euh, sama digganteeg moom nag dama ko yàgg di wax diggante ji Dul Ndiaye Kumba Rose la ak Mansour Mbaye waaye Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye bëgg naa commune u ak rawatina son excellence le président Macky Sall mu bàyyi xel ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye nag moo tàllaloon loxo ki ñu wax honorable député Farba Ngom pour mu jàppale ko ci commune Asalem Farba tàllal loxo ku ñuy wax Cheikh Ahmed Tidiane bay loxo pour mu jàppale ko ci élection yi yàlla def bi ñu duggee ci élection yi ak ñi ñu àndaloon nag ñëpp ci commune bi ñu gagné 44 bureaux yëpp teg ko ci loxo honorable député Farba Ngom mu teg ko ci loxo son excellence le président Macky Sall mu jeex nag Cheikh war a toog. commune bi waxtan seen bir ne Cheikh pourquoi ngay tok am na leneen lo wara a def mune yeen fu ngeen ma tek rek foofu lay tek bo bu legui nak Cheikh togul mi ngi si commune bi di jappale population commune aslem ci febar faju tabass si jot mu taxawu bu korite jotee mu taxawu leen képp xam ya ngi si commune bi to febar Cheikh Ahmed Tidiane bay mi ngi lay jappale nak yi nag c'est pas la première fois jënd na 30 nak 30 nag yi yëpp man Birame Ndiaye Rose porte parole mouvement sa dëgg-dëgg maa ko yóbbu ci koñ yi nekk ci commune HLM yëpp gannaaw bi son excellence la président Macky la jëlee ay nag teg ko ci loxo honorable far ba Ngom ba jël ko teg ko ci loxo Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye président du mouvement sa dëgg-dëgg lépp luy juma ak jàkk ci commune HLM jot nga sa nag. Cheikh ne man damay feelu son excellence le président Macky Sall damay feelu Marème fay Sall damay feelu ki nga xam ne nag mooy sama leader mooy sunu parrain muy honorable Farba Ngom mi nga xam ne tey politicien bu nu ragal ci commune bi rek Farba tax nag kookoo ne sunu ginnaaw kookoo ñuy dooleel kookoo ñuy jàppale kookoo ñu bëgg kookoo ñu yëg Farba lu mu soxla te jëmale ko ci son excellence le président Macky Sall Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye président mouvement sa dëgg-dëgg pare na ak waa mouvement sa yëpp kon nag Cheikh Mbaye gannaaw li son excellence la président Macky Sall def ci commune Asalem ci jàkka yi Cheikh mbay feelu na ko ci 30 nag dugal ko ci biir koñ bi koñ yëpp jox leen ko maa ngi jógee léegi nii ci waa naaj bi jóge ci waa leget bi jóge nañ ci waa montagne cité bisaab bi nga xam ne Cheikh Mbaye dëkk fa sax dugal na fa ay nag kon ku mel nii Cheikh mbay bëgg naa ku mel ni son excellence le président Macky Sall mu gestu ko bàyyi ko xel nag mi ngi liggéey liggéey boo xam ne liggéeyul ko kenn moom la koy liggéeyal muy son excellence le président Macky Sall ma bëggaat tamit ki nga xam ne mooy ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mu xam ni Cheikh mbay mi ngi doxee ay waawam parce que bii feebar bi duggee muy Covid 19 bi Cheikh mbay luy gel luy siwo luy paan luy luy satala ak lépp loo xam ne doomu aadama daf ko war a soxla Cheikh Mbaye jënd na ko dugal ko ci commune bi jàppale ko le ministre Abdoulaye Diouf Sarr kon na maa ngi ñaan son excellence le président Macky Sall fii asolem soo fi bëggee loo soxla am ko damaa bëgg ngay jaarale sa lépp ci honorable député Farba Ngom mu di ko jaarale ci Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye ñu ànd ak le mouvement sa dëgg-dëgg yëpp nekk derrière son excellence le président Macky Sall loolu kenn mënu ko wax cheikh mbay limi dépenser ci commune HLM yakarna naa ne buñ ko don wax dama ragal ñu bari dinañ ne c'est pas possible loolu kenn mënu ko wax waye yeen ñi filmer gis nag yi xam ngeen ni Cheikh mbay jëndul nagu 500000 jëndul nagu 600000 parce que mak mom ñoo andon bo xolé sama tanki ni mo mel ñu ngi won ci biir pocho pocho yi man ak mom lu jafe ci leader bu dugg ci biir ndox pocho pocho nag yi di ñu dàq ñuy daw lu ko ko jaral moy commune HLM kon loolu mënu ñu ko wax Cheikh mbay limu mu dépense ci xaalis mang koy wax ko xamni do doo député doo directeur bokkoo ci benn commune sa doole rek nga am ak sa doole famille ak sa doole waajur kon ku mel noonu dañ ko war a gestu man na suma sañoon son excellence le président Macky Sall dina jàppale ku ni Cheikh mbay parce que fu mu dem demeewu fa turam turu son excellence la président Macky Sall la fa demee ak honorable député Farba Ngom mu baax. asalaamaaleykum man la mbay ma Madiaga di membre ci mouvement sa dëgg-dëgg. bi nga xam ni Cheikh Ahmed moo ko jiitee ànd ci ak waa HLM yëpp nit nag soo ko bëggee jàppale da ngay seet lay bëgg-bëggam nga def ko dégg nañu rek gis nanu le gardien de la constitution di le président Macky sàll jëf juré ji mu def ci tamxarit ji jëfam jiitu woon na loolu dégg ngeen ñu ni yóbbu na ci jàkk yi dégg ngeen ñu ni yóbbu na ci koñ yi. bërki demb rek ma jóge Thiès gis ay nag yu bari waaj ma ni ku ko indi ñu ni soxnaa Marème fay sàll kon nag nit soo ko bëggee jàppale da ngay seet liy bëgg-bëggam nga def ko loolu la Cheikh Ahmed Tidiane def fii ci HLM lu mu def mooy jënd ay nag ñu mu ko jox population bi waxuma rek mouvement bi de dégg ngeen léegi mu wax ni bu fekkoon ni day am ñuy ñàkk waa mouvement bi ñooy ñàkk mu jox ko population bi loolu nag yàgg na ko def bi mu koy def booba amul ambition sax ci wàllu politique bi mu koy def booba da ko doon def rek xam ni moom HLM la am fi la juddoo ay wajuram fi la nu nekk mu juddoo fi am ak nit ñi ay relation di def lu baax moo tax ci loolu ci la ambition yi dugg waa HLM bëgg ko ndax jëfam gis muy dimbalee gis muy def lu baax ñu ni kii daal ca dëgg-dëgg nan ko jël taf ko sunu wet kooku mooy Cheikh Ahmed bay ñu koy ñaanal gudd fan di ko ñaanal projet yi nga xam ne am na ko fii ku gis lii di nga xam ne lii budget la dégg ngeen léegi mu wax nii ki ko jàppale nag ba nga xam ne lii lépp mën na mooy son excellence monsieur Farba Ngom. ñuy ñaan nag ñëpp ñun waa HLM li nu bëgg mooy maire bi ñu yàlla yëkkate ko teg ko ci loxoom ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla def.